siiw du boom maa xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo. ma marché cacahuète xaw ma si sabay dana. nga ñëw ci lamb ci taxaw di. yow ku ñàkk jom nga loxo nii benn ku ñàkk nga mag bu toll yow ma lay noqee benn loxo. non dama la bëgg a génn ci biir. bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi Karajo élément diwlu ma dañ na ko càppe. Karajo élément non non ma euh, ba taxaw. ma dama jël tànk ba taxaw. moom waroon naa félicité. dafa toog ba pare non xam nga hmm. lan non dafa lan xam nga bërekat bërekat. bërekat dëgg. daan am na nu may lemee los bi ci kaw du gaañu lu si bi métti métti du gaañu hmm. mais ji mbër bu mënu bëre day benn bëre bi bu la buddee bu def nag day dem soloos. su ko mu expliqué mu daan xam na lu may wax yaa ngi dégg mu man mu lu bëri day benn piis man ba mu ne ko càppet man ba ma jëlee tànk bi wi ma ba mu ne bi di ko weñ mu ne ko dafa dëgg rek ma bàyyi ko bëri mu dem oh. mënoon naa fa samp taxaw mu téye fa naan nii naan nii man tànk bi bu mu jëkkee ne càppet tànk bi pouvet teg moom mu rëcc suñu premier combat bi deuxième combat bi laa suma stratégie nga xam ne kii su ma ne càppet tànk bi su ma sigee taxaw amatul xam

tak nga ni woon. waaw bon nga ne ëpp. saa day ñëw compréhension non si nga ne saa day ñëw. léegi mbër moom da lay stoppé da lay wan ni ñëw maa ngi ñëw taxaw rek maa ngi ñëw pour ñëw. non dëgg ma expliqué waaw danaa na maa ngi ñëw. ci biir bëre. day wax xam nga bëre mi ngi mel oto booy dawal da ngay signalé. waaw woon ki sa ginnaaw maa ngi jàdd. comprendre nga boo gisee daan nga def. yow kii dëgg dafa nekk xam nga signal danger pour woon ni. danger am na moom da lay woon ni de. Modou Mbaye maa ngi lay soog xaaral maa ngi ñëw nga naan noonu dina ñëw xaaral maa ngi du ñëw boo ko dina soog ba dem taxaw bu ñëwee xaaral maa ngi ñëw ñoo la ñoo la yegsi na. non comme nga yegsi na bi yegsi. yow dóor yi mën na fi dóor moo jom yow yow may man man ba ñuy bëre mag moom yow ku ñàkk jom moom man man dama ko kaw dóor yëpp amoo jom yow. man dama ko dóor ba mu dama ko dóor ba mu brek ba brek ba ci suuf. yow ma dóor la nga def nan Simon. yow lan nga ma ko mën a dóor xam nga Simon dama ko dóor mu Simon waat ba ci suuf ma fel ko waaw su ko bara bëri moom ci temps ñor ma daan ko mais yow yaa war a jël seen avance. toj kaani patel la marché. waaw nag toj kaani patel la marché cacao cacao xaw ma marché cacao rek xaw ma je sais pas dana. nga ñëw ci lamb ci taxaw di ay góos benn loxo nii benn. ku ñàkk jom nga mag bu ah, toll yow ma lay noqee benn loxo. non dama la bëgg a génn ci biir. d'accord mu nokk bàyyi ma ay kilifa yi toog aussi. wuy ma wuy ma non dëgg ma expliqué. non non non non non bàyyi sax rek dafa tëj lamb xam nga mu tëj lamb. non non non non kii kii bëri moom da lay ñàkkal fay ñàkkal nit ñi seetaan sax dañuy da ngay ree ko da ngay ree ba tas quoi pourquoi moo dama oui ma dafa juum rek dafa juum non même ñëw même ñëw man maa du bëri teg lat yow do bay bëri yow moom la sama pare na ki bëri dootuma bëri ak moom ci di suul eh, ndaanaan yow da nga di suul ndaanaan nekk ndaanaan foo toj yow sa defet yi bari yëpp fan nga amee fan nga nekk ndaanaan bëri champion yow daaw yow defet yi nga bëri kenn xamul ma lamb man bàyyi leen di wax du ma bëri defet yi ma bu ko amoon ma bàyyi lamb man man la dëgg ay jàmbaar laa dajel jàmbaar day dee ca waar man mii di wax yow ay jàmbaar laa dajel ban jàmbaar limal ba kenn ñëwal tu puusal sama parcours nga limal ma. non limal kenn. non limal sama parcours. waaw waxal benn mbër rek. yow kan kan kan fi Yékini. waaw daan pare na daan fi Tapha pare na. daan nga ne Tapha la d'accord naa mais Yékini ak Tapha Gueye moom bu leen sa carrière. nga ne Yékini sa carrière. xanaa ñoom xanaa ñoom du limal say victoire léegi déglu limal say victoire anak ñu benn benn rek wax non non bul wax benn waxal ñëpp benn waaw dama wax d'accord benn rek laay wax ay xaadim njaay ñëpp bàyyi nañ lamb waaw dëgg dëgg dëgg moom benn benn laa wax benn laa musul combat yëpp benn combat rek laay wax musul combat yëpp xoolal mu naan benn combat Balla Gaye 2 bàyyil Balla Gaye 2 neen beneen ba nga ko daanee ko fi yaa sulli sama néew yaay bombardier pare say mbir yow beneen nit sax bombardier waxal beneen beneen troisième tigre face mi Gris Bordeaux lak ruubekat la quoi neel beneen waxal beneen la de guerre la de guerre moom ci boppam li ma sama bi bopp kaay moo xam moom léegi man keneen mu làmb ñi déglu ma la mbër il faut ñu dégloonte ñi nga xam ne mbër mm. xam ne ñooy keneen mu billaay wallaay bëri tu ñooy keneen mu làmb ñooy keneen mu man dama bëgg yow

toogee di ko cité noonu nga war a toog cité bisu moom moo cité moom moo cité bàyyi ma cité samay waaw di di Modou Mbaye Modou Mbaye Modou Mbaye non kaay Modou Mbaye dama lay tafa moom mën na lim moom non Modou Mbaye ñëwal man Babacar Diallo Khadim Diallo Batika mm. Mansour Diop mm. ñu ñëw ci kalaaf bi mm. euh, Tafatine pas Tafatine nees bu gën a nees waaw nees waaw yaa ngi dégg ñu ñëw Tafatine yi ki di Zidon Issa Pouye yaa ngi dégg Zos Zos ah. ñu dem ak kan Papa Sow Papa Sow Moustapha Gueye ak kan Yékini Yékini. Yékini ak kan. Boy Niang Boy Niang ak kan. jeex na non non. ak Ama Sène waaw non non non man déglu ma xam nga fa lañ tàkkalikoo bu lox bëri xam nga fa lañ tàkkalikoo. te ku ne boole sa morom nag ci la bokk yow ci nga bokk. non xam nga fa lañ tàkkalikoo man roi des arènes la. bàyyi di wax roi des arènes nga. ah lu tax roi des arènes man xanaa man daanu ma Yékini man. nga ne yow roi des arènes yow nekk roi des arènes. waaw moom roi des arènes jël doon bi ci moom yow ba ngay daan Yékini Yékini nekk roi des arènes. ma ne ma ne maa toog si siège bi ñam ko xam nga sax kii man ba léegi nekkul sama roi ma ne man maa toog ci seize bi xam lu muy saf. nekk roi des arènes toog jël kàddu. boo xam ne deful ci un mois. non mu ne def sa deux bëgg naa mais doon naa ko yow mi ko doonagul nag. loolu laay ñaan yàlla dinaa ko doon. non loolu loolu yow la concerne. waaw kay. comprends ma sa man damaa bëree ba jël li jaasa yi. muy roi des arènes ma bul soxor nee ma félicitation. wax ah, bi jeex ay on est félicitation ba pare dañuy waxtaan ak kii dinaa ko ñam ne ci kàttu. waaw d' nee na moom roi des yéene naa la ko. waaw da nga yow maa ci xam dara lépp lu yëngu yow lañ